suis Morlo, Morlo, commission intendance bi nga tibir comité d'organisation Grand Magal Touba suñu serin Cheikh Bass ko euh, di sant serin Touba Cheikh Sidi Makhtar général de Mourides mu fi di ko ziyaar di ko ñaanal di nuyoo tim uh, njabootuk sëriñ Touba gi yëpp di ko jaarale ci suñu jëwriñ muy sëriñ Cheikh Bass Mbacke mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation bi di ko ñaanal ci liggéey bi lii mu dajale ñëpp boot ñëpp mooy setu sëriñ Touba yi muy taalibe sëriñ Touba yi ñoom ñëpp ñu laxasaayu bu màggal gi jubsee ñuy def ay pexe yëpp pour nu ko màggal gi yéwéne ñun ñi ci biir organisation màggal bi ñu dénk ñu ci benn poñ lu jëm ci dajale lépp loo xam ne dafa jëm si ci comité d'organisation bi moy lu mel madla. ay madla lu mel yenen yo xamne dañ koy jëfëndiko ci bir madla magal gi moy ay fruits di boisson di ay xéewal yo xamne lepp lépp lenn li taalibe Serigne Touba ñok fi indi li comité bi ci ndigalu Serigne Cheikh Bass ak ci kàttanam moo ñoom ñoo koy jënd euh, commission intendance nag dafa nekk ci biir comité d'organisation bi nekk ci banqaas ca xam nga ne coordination bi yëpp suñu sëriñ sëriñ Ousmane Mbacké mu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma moo ko yor commission intendance beetim dafa nek commission bo xamné da daa day jëflante ak ñëpp commission yépp ci looloo tim at bu jot mu rafet lool ñu ci sant yalla di ci sant sëriñ santat bu baax tim sëriñ Cheikh Bass mi nga xamné mom mo ñu tan boole ñu ak ndaw yi ñu laxasaayu at bu jot ci dana ci wat légui ci organigramme bi bu magal jubsee dootuñu dem seen sax seen kër duñ xam lu fa xew ba bëccëg ña ngi fii am na ci ñoo xam ne sax fi lañuy fanaan loolu lépp nag ñu koy def ndax bokk ci taalibe yi war a taxaw màggal gi nega si daaw ñu defe ko nu mucc ayib ren njiitim boobu ba léegi ñu ngi àndandoo nii boo ma gisee ma toog maa ngi toog ak équipe bi yëpp équipe bee itam ni mu composé woo bu ñu nekkee jëwriñ ci biir itam dafa am ñoo xam ne ñoo topp suñ ginnaaw muy Serigne Baba Ndaw mii di oustaz Baba Ndaw xam ne su ma fi nekkut moom mooy jiite xale yi moom moom su fi nekkut ki toog ci sama wet di fallu Diop moom mooy ñëw loolu lépp nag ñu tërale ko noonu donc juboo ci déggoo ci ca

suba ak ngoon guddi sax am na ñoo xam ne fi lañuy fanaan lii seen liggéey tim mooy recevoir lépp loo xam ne dafa jëm si ci biir màggal gi ci ay xewal wax naa ko léegi muy boisson muy ndox muy ay matelas yenn yi am na ñoo xam ne ay kilifa wala ay euh, taalibe sëriñ Touba ñoo ko fi indi loolu la ñu sant ñu recevoir ko defal leen ay décharge de réception yu leer

li ñuy liggéey lépp tim ci weer yi lañ ko xayma ba mën naa wax sax budget bi ñu laajoon loolu lépp wax dëgg yàlla comité bi jox nañu ko muy déplacement xale yi mooy bu ñu soxla oto bu ñu loué pour déplacer ay bagages mooy suñu communication yooyu yëpp vraiment jot nañ ci ca amuñu ci benn jafe-jafe kon dañuy dolliwaat rek di sant.

di leen laaj ci li nga xam ne noonu la ñuy taxawee ci biir màggal gi kon maa ngi leen di déglu nag léegi maa ngi leen di déglu léegi ci question yi nga xam ne moom ngeen may laaj. non budget budget moom wax dëgg yàlla ñun li ñuy liggéey jot nañ ko à cent pour cent ndax amul solo noonu ndax wax naa léegi suñu déplacement yu jëm ci yooyu rek lañuy la ñuy soxla mais li nga xam ne. ñun moom la ñuy gérer ay xéewal la yoo xam ne yu takk yoo xam ne soit Serigne Cheikh Bass moom moo koy mooy moo moom moom moo koy joxe donc jaarale ko ci commission finance donc wax naa lu ñuy tëdd ci mat ci ñun lay jaar luy euh, nag wala xar wala giléem bu ñëwee ñun ñoo koy réceptionné delloowaat ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a delloo yeneen xéewal ndax wax naa léegi waa Kirène Orange yooyu yëpp ay Tigo indi nañ fi ay ndox yu bëree bari waa CGBM indi na fi ndox mu bëree bari ak ay boisson donc yooyu yëpp nag fi mu ne mat na fruits yeeg canettes yu jëm ci xéewal yeneen yi yëpp wax dëgg yàlla commission finance lu ci matut ñoom ñoo koy mottali ci ndigalu Serigne Cheikh Bass ak Serigne Ousmane Bakke. En Je m'appelle Morlo, je suis le président de la commission intendance du Grand Magal de Touba. La commission intendance est une commission partie intégrante du comité d'organisation que dirige Serigne Cheikh Bass. Donc Serigne Ousmane Baké également qui est le coordonnateur qui nous donne des ordres. La commission est en, en charge de réceptionner les matériels donc, qui entrent dans le comité. La commission également donc euh, distribuer aux autres commissions euh, les matériels, qu'ils ont besoin. Également, il est, euh, cette la, commission intendance donc, donne aux différentes commissions les produits donc, à sa disposition, notamment les boissons, euh, donc, euh, les fruits, euh, les, les, fruits, les matelas, les tentes que les commissions donc, ont besoin pour, pour leur fonctionnalité. Bref, donc actuellement, nous avons donc recensé beaucoup d'arrivées de matériel, donc notamment des matériels qui, qui, qui nous viennent de, de, certains talubés, Je peux citer Serigne et Bem. Kiren, Tigo également, qui sont des sociétés. La commission finance également nous a euh, amené beaucoup de, beaucoup de beaucoup de boissons, beaucoup de fruits. Et tout cela donc pour le, bon fonctionnement du Magal euh, de Touba 2013 bis. La communication qui est en train de faire un gros travail vraiment de, communication, de rapprochement des communications, des de, commissions. Et cette nouvelle démarche vraiment en est une. on s'en félicite. Je remercie également les membres de la commission qui, depuis un mois, donc, ne ménagent aucun effort pour un bon déroulement des objectifs de, la commission intendance.